ñu tuddee nawet fii ci Sénégal xel yëpp dal di dem ci salte foofee ca marché Castor ñàkk lool lii di assainissement rax ci dolli ay liggéey yu yembul benn yoon moo ñëw rek dal di yokk désordre bi fa amoon. li fi xam mooy que euh, dañu ñëw ne ñu wàññi réunion à la sous-préfecture dañuy defar benn projet bu état bi def xam ne ñu bëgg andi eau eau eau eau de la mer bu jóge Wakaam def ko eau potable. pour les populations ak changer assainissement ci tëli ndox mi da xanaa ñu gasal ñu tali boccal ñu ko nii foogoon naa balaa nawet bee ji xaw ma balaa nawet bee ñëw danañ ko defar. ci nekkin woo xam ni kenn mënu koo natable ay jaaykat yu tëmb ci biir ndox bi ak seen ay taabal rax ci dolli ay fiilu courant yu indi njaxare tey mën a indi jéeya saa su ne ci la Abdou Manaf Anne di dootu baaraamu tuuma lii di municipalité bi. jëluñu benn mesure parce que bu loolu mesure mooy foog bi ñu paree defal tuyau yi dañ ko war a defar ko. ñëw sëg ko defal tali yi ce qu'ils avaient dit AGETIP xam nga AGEROUTE moo koy defar nangam nangam yooyu wax nañ ko mais gisuñu kenn ba léegi. ñi nga xam ne ñoo dëkkee foofee ca marché Castor. ginnaaw bi ñu waxee ak mairie bi. te àdduwul ci mbir mi benn yoon. ñoo ngi woo njiit yi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi. seen message fort bi mu mën a envoyé mooy que ma koy envoyé à l' central parce que moom mooy maître d'œuvre ouvrage yi. parce que mais boo dee mën a man du si man mais état bi la donc état central bi moom na ñëw jublu ci Castor léegi nag léegi fu mu li muy def on risque d'avoir taw bi bu fekkee man yàlla dafa tawaat ñun suñu kër lay dugg on risque ñooy gën a yées que Malika Kër Massar yooyu parce que ñun suñu yëpp bouché nañ ko foofee ca marché Castor ndoxu taw bi dal di jaxasoo ak ndoxu fons yi salte ba dal di fay bare lool ay fiilu courant yu wàcc ba mën a indi jëye saa su ne moo tax ba askan wi nekk ci tiitaange ak njaxare ci loolee ñoo ngi woo nguur bu Sénégal mu dal di ci àddu balaa taw bu bari di ñëw inondation dal di fay am